asalaamaaleykum euh, suñu mbokku téléspectateur suñu Label TV ñu ngi amaat mbégte bu baax ak contentement comme niñ koy baaxoo di def saa su ne mbégte rek la ñuy àndal dalal leen ci suñu émission bu bees bi di Label Night comme niñ koy euh, baaxoo di dégg saa su nekk rek suñu euh, télévision bi sunu Label TV euh, ci canal 27 bi sur la TNT la TV d'Orange bi numéro 37 la application bi Label Média waaye tamit plateforme digitale yi bu leen ko kenn nettali sunu Label TV la ngeen ànd ci ak seen sista seen xarit la uray mu fas yéene leen bégal ci samedi night bii macha allah di Label Night di émission boo xamante ne tey jii lépp lañ leen ci tegal incha allahu rabbi ànd ceeg ay ndaanaan yoo xamante ne ndaanaan yu mucc ayib lañ ndaanaan ñu ñëpp ràññee lañ ndaanaan yoo ñu ne dër lañu te it lañu donc nag ñu ngi leen di ziar j'espère bien que reer ngeen ba suur naan seen ay espèce zirig ay ataaya ñoomin seen teg seen i fruit jàkkaarloog man macha allah ma fas yéene leen bégal ci seen émission Label Night donc nag maa ngi leen di présenter sama naataango yi nga xamante ne ñoom laa toogal di eh, ay artistes yi macha allah yoo xamante ne yu incontournable lañu macha donc damay euh, tàmbali ci sama ndeyjoor ma feggoo ak ki nga xamante ne moom mooy Djibril euh, Diop sama doomu baay maa ngi lay ziar. waaw soxna Ouray maa ngi lay fay di nuyu waa Label TV di wax suma yaay fi mu tëdd yàlla na suuf oyof ci koom ci barke Serigne Babacar. sam papa tamit fi mu tëdd yàlla na suuf oyof ci koom ci barke Serigne Babacar. di nuyu suma fans yi di nuyu àdduna. di nuyu suma njaboot. di nuyu suma soxna bi nga xamante ni taxul mën na ma dara muy borom Paris maa ngi koy béggee di nuy àdduna bépp di la béggee nag di ci dalal bi eh, dégg nga lii macha allah Sénégal ñoo la nam moon nag da leen a war a nuyu ma eh, ñëw ci sama ndeyjoor eh, feggoog koo xamante ne Sénégal macha allah xam naa ne bis bu ma ko présenté di ngeen xam kan moom mooy kan muy Mor Bongo nga xamante ne sincèrement bokk na ci njëkk taasu ci réew mi ci kanam tuuti dinañ ci bu ko defee ngeen ràññee kan mooy moor Mor Bongo ma bàyyi la nga nuyoo waa maa ngi siyaar di siyaar àdduna di siyaar sama jigéen bi macha allah waaye yow kenn gënu la ku euh, jibril ni mu koy waxee rek laa koy waxee ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant sunu waajur yi nekk ci biir suuf. Mhm. te amuñu lu dul ñaanal leen man mi ngi gis ni dama teel a ñàkk yaay teel a baay. dëgg sama yaay am man kese. Mhm. ci doom ak sama bapp waaye teewul ma am jom. Mhm. ndax jom da nga koy da nga koy wut. mën ngaa ñàkk lu ne mais jom ne ci yaw bu jom neewee ci yow rek li nga bëgg da nga koy am mhm. yàlla na yàlla defal Sénégal yëpp jàmm mhm. di la ñaanal jàmm yow tamit parce que li nga def ni yombul mhm. waaw ñu bari bëgg nañ ko mais yombul waaye Sénégal dinañ xam ne ndeysaan moor mi ak moor mi ñëw na dëgg neexul waaw waaw li naan gaa yi dañ lay dogot dogotee la mbuus la ba mu neex ñu dugal la ci frigo na la kàpp c'est lépp di galaas. yamba waaw dañ koy réglé. <laughs> doy na waar ma feggoog aussi tamit sa ndaanaan bi nga xam ne moom nga àndal mu lay accompagner ci bongo bi tey nag macha allah ambiance rek ba mu neex ah. ah na la bàyyi rek ngeen ni salaamaaleykum nuyoo donte wax ne nga da ngaa kii di nga ci bongo bi ci kanam tuuti ma bàyyi la nga nuyoo. <laughs> waaw salaamaaleykum nuyu àdduna ñëpp man Bongo. dëkk Pikine wax daal waaye mën nga bongo waaw léegi ma xaar nag leen nuyoo leen ma ci bongo ma xool moor Sénégal na moon nañ la léegi nag eh, balaa ñuy eh, def dara ma feggoog sama waa ji ma bàyyi la nga nuyoog sénégalais samedi soir a noonu ak Label Night suñu mbokk téléspectateur ki xam ak ki xamul noo ki mën gan da koy teral ki mënul gan da ko teral dalal yàlla ko ka yara rafet raya dégg ma kër goo gis ka raya rafet jeeg fa nekk xaw naa dee muy sooga taxaw nan ba réew mi dama ko wax kenn du ko dund xam ku mu ki wuuf njaboot ma wayu ko wayu gambi say ma wayu ko wayu gambi li ma njëkk a taasu tey laa koy wax dama ne woon Abdou dafa wàcc lay yi su nga rootu liggéey ñu dem di ko jaay boto ba suba ku ne boppam lakkal ren bii ren bii ku ne boppam lakkal waaye xoolal di bi ma teg tey laa koy wayal ba mu neex ma def ko Gracias. waay lii yàlla na jàmm yàgg ci réew mi boobu mu dootu ko defar defati dina wax par force nga ne mu ne lan ah mu ne ëbaba mu ne wababa ëbaba la mujjee ba caag mu ne ma wababa ay waay ay ca Sénégal moor a ngi noonu yéen a ko doon laaj moor maa ngi nii daal di naa leen ko ci paquet bu bees tàq macha dalal ko sama première émission di ma bi nga xamante ne mooy Label Night ci samedi soir tey ji ci 22h ngeen jàkkaarloog ñun reer ba suur ñu ambiancé leen incha allahu rabbi euh, bu ko defee du ngeen ba wéet benn yoon nee naa leen sunu Label TV mooy télé askan wi mooy télé sénégalais moom it euh, moom ngeen di xaar di télé artistes yi samedi soir nag yéen leen ko jagleel te duñuy defar ba mu baax Jibril Sénégal na moon nañ la maa leen raw foofu a ah, Jibril fan nga nekkoon ci réew mi waa nekk sama ruq mhm. euh, yàlla defoon Youssou Ndour organiser concours xeex si biiru waaw muy mille artistes ma gagné ko. ñu ne ko ko gagné dañ la yóbbu tournée internationale nga def ak Youssou Ndour featuring. Mm-hmm. mille artistes yi ma gagné ko def ak Youssou Ndour dem tournée internationale def ak moom featuring ñu woy Massamba ci anta borom yettu xaalis. ah bi ñu jógee Bercy le 27 septembre. bu Ndour oo ma na ma tey ngay ñëw Prince Art enregistré sa album. ma dugg maa dugg Prince Art télé laa toog de 9h30 minuit sama it morceau pare sama album pare. yow mi man Djibril Diop ndaa naan kulli fàll ñu njëkk cee génn morso bu naan maam li maamu ma génn ko 2010 ba tey ci laay dund lépp lu muy may ndaanaan rek may na ma ko. waxuma la di def bës di sañse boo mu fekkee fa nga dëkk yërëm ma de. Mhm. morceau boobu lu muy may nit ci teraanga may na ma ko. waa junnaan Birama Niang di seetu Chérif Alwaseynullahi maa ngi koy gërëm mm-hmm. barkaati démb ki yaa buy jar vingt million la dawal ñëw jox moo ne ma addee Chérif Ousseynoulaye dëgg la mais musique nag dafa naan ak genn animateurs yi am ci part de responsabilité animatrice yi am ci part de responsabilité mm. suñ demee ba musique léegi kuy def dara boo génnee da ngay fay pour ñu teg la ah, ah kon nag naane na genn mm-hmm. yéen nag ngeen am ci part de responsabilité kii day nekk artiste nekk ci koñ bi ngeen bokk ci estafam xam nga tey boo bokkee ci estafam ngay animatrice heure boo xëyee di di nga ko teg mais man ma toog sama ruq ne lu ma génn ci kattanu suñu borom ku ma oowul di nga ko teg parce que li may def dafa nekk ci man te dama ko gëm utuma ci gël tiitaruwuma ci jaayuma ci taar utuma ci succès damaa pare pour njaboot gi fi sama yaay bàyyi ma dimbali leen te sama baat bi heure bu xëyee dina dundal trente cinq bakken barki alxuraanul karim li may wax télé laay toog di ko wax barki yonent bi macha allah waaw nekk sama ruq nag di liggéey Sénégal il faut nga garder sa personalité man nekk dëkk fii Ndakaaru dëkk ci fukki penc ak ñaari kon duma duma duma ma wanteer suma bopp bi may génnee maam li maam mu boobu jamono jooju kuy génne mbëggeel ngay génne ma ñëw génn maam li maam mu muy carton tey mi ngi ci 4 millions de vues. non non non euh, loolu doguma la dafa nekk euh, titre boo xamante ne dafa cartonné woon nga def ko ba pare def clip bi mu nekk lu extraordinaire loo xamante ne Sénégal ba léegi euh, son boobu moom dañ koy enjoy sincèrement kon bu ñu nee Djibril Diop ñu ne moo wayoon Seydina Limamou ba pare moo defoon featuring ak ay Samba kon dañ naan macha allah kii nag la mu doon way ndaanaan dëgg la rax ci dolli waxuma la dara mais ndaanaan dañ koy gis ci yenn yenn yenn yenn qualité yi. dañuy gis ci moom yenn personalité yi waaye tamit comme li nga wax tout à l'heure euh, jamono bi nit ñi di way mbëggeel yow ci nga way li nga xamante ne moom mooy sa album boobu mm. te boobu ba léegi moo lay teral mm. léegi yan yan lan moo la téye boobaak léegi ba euh, Sénégal euh, benn album boobu rek nga toll noonu non tollu ma ci benn album boobu bi ma defee maam li maamu ci diggu promotion bi mm-hmm. feebar naa ba paralysé ah bu hôpital buñ ma yóbbu médecin yi ne c'est fini ma tàcc su ma njaboot tàggu leen ne leen xam naa 17 heures du ma bi fekk ma yóbboo hôpital 14 heures et demi la Serif Ousseynou Laye ànd ak sëñ Fallou Mbacke mosuma gis Serif Ousseynou Laye mu ànd ak sëñ Fallou Mbacke géntuma jeneeru ma barke alxuraan ñu ubbi bunt bi fekk ma si biir hôpital bi Serif Ousseynou Laye bi mu duggee mu ngi sol lu weex ak ay ver sëñ Fallou sol caaya ak jamput bu bëla dëgg shérif na ma man docteur de la jeunesse ak li ma bàkk ñu lay fexeel du luy am docteur de ma fuy mitti ma ne ko xaw ma lu ma dal mu gëstu xool sëñ Fallou ne ko Mbàkke bàllaay a dama ma jóge fa am doom tudde ko shérif Ousseynou Laye mu dese ma sëñ Fallou Mbàkke bàyyi Cheikh Abdou Karim waaw looloo taxoon nag ma arriéraat Sénégal di ñëw di indi talent sax wóorul hmm? waaw sama waay xoole ni mel waaw li muy wax du ca delluwaat te fu mu jaar dootu fa jaaraat dëgg la mais Euh, bu la loolu dalee da ngay reculer. Mhm. diggante bi màgg nañ ci tey lañ gën a mën leen tey lañ gën a mën leen di def touche du bois. tey la inspir suñu expérience yokku na ci. Mhm. inspiration bi yokk na ci. dëgg la parce que la plupart ci natt yooyu ci ngay jëlee lu bari. ci bari te te chaque man du ma xëy benn jour tawayu ma. ah waxuma la ay mercredi ak dimanche de man mhm. chaque jour sama baat bi day way. dëgg la. ndaanaan chaque jour sama baat bi day way. semaine bi yëpp maa ngi ci télé yi. kon donc depuis boobu la Chérif Ousseynou laay ñëw seet see ak ki nga xam ne mooy sëñ Fallou Mbacké bu Serigne Touba. Hmm. ñoo la seet si euh, ci nga ci nga wér. ci nga am ah, doom tuddee ko Chérif Ousseynou laay sunu léegi léegi tane nga. bu baax ça fait combien d'années. non yàgg na. yàgg na na mais yaa ngi ci liggéey bi ñu ngi xaaraat ci yow benn album wala single wala parce que sa fan si laa namm nag. sama moyenne donte li fi bàyyi sax moom ruusagul ba léegi mais namm nañ la. sama moyenne bopp man enregistré naa 14 morceaux studio Laye Diagne LSD Record. ah tournage yu clip moo ci des. Mhm. te sama doole jeex na. def naa ko sama doole jeex na quatorze bonn morceau bu baax boo def di nga def trois cent cinquante mille wala quatre cent mille. Mhm. ma def ci quatorze. maa ngi ñaan am na lu may waaj pour def clip yi ñëw. talent du jeex. Youssou Ndour a ngi nii day way talent bu nekkee ci yow demal ba am téeméeri at da ngay way. da parce que talent moom ci nit rek la nekk. waaw léegi nag ci kaw 14 morceaux yooyu dama bëggoon comme ci soirée lañ nekk. danga may mayal sama fans yi suñu mbokku téléspectateurs yi ak sa fans yi nga xamante ne ñoo ngi lay xaar nga may ñu benn playback en attendant. playback les événements waaw. playback léegi nii aywa. ayca playback wala wala kii rejoindre le podium bi.